Ngadiaga ci teen bi macha allah. Mm-hmm. di lieu bu sacré sacré sacré sacré. Mm-hmm. li may wax nii nag wax dëgg yàlla expérience la bu ma bu ma fa jot dund la parce que man yàgg naa Malika ma mosuma fa dem. Mm-hmm. mais wax dëgg yàlla bi ma fa duggee rek xam naa ne macha allah fii am na dara. c'est vrai waaw ku fa ku fa dem rek. teg euh, man bi ma fay door a dem noonu la ma def. Mm-hmm. mais même caméraman bi ma àndaloon ndeysaan euh, ma kodd maa ngi koy nuyu de passage moom it dafa ñëw dafa dugg rek loolu la njëkk a wax. c'est dafa ne fii moom ma ne ko ah, gis nga. am na lu mu yëg am na lu mu yëg. macha allah muy waaw lii lii bu tedd la. Mm-hmm. macha allah euh, ñu dem nag jële ji reportage bi. Mm-hmm. su ko defee kañ fa fekkoon muy suñu papa Makumba. mu expliqué ñu teen bi li ko waral ak. lam fay jëriñ ak yëpp. très bien dem région ñëwaat di leen gërëm rek di leen sant ci déplacement bi di ñaan di tànk yi ngeen fi ñëwee ak yi ngeen di delloo yàlla na ko yàlla def tànk yi yëkkatiku ci fa ngeen di liggéeyee barke Baye lay wor mais maam Seydi comme ni nga ko waxe woon ci teen bi rek teen bi daf di loo xamante ni Seydina Ali maamu bàyyiwu ko fi maam Seydi bàyyiwu ko fi maam Mandione bàyyiwu ko fi Baye Seydi Thiaw bàyyiwu ko fi ci xilaaf ak Baye Raan ci leen gas teen bi nga xamante ni dafa am sunu benn mbokk taalibe boo xamante ni dafa nësaroon gas fi nekk bitim réew nag bu mu nekkee bitim réew nag bu ñibbisee fii nag feebar dab ko yàlla moom ko fi ñam fa nekk londoon nag di ay doomi dëkk bi ku ñu wax euh, Birane Kebe ak Boubacar Kebe ñu ni daal li seen waajur yu waxoon ñoom dinañ ko eggale kóllëre gi nan ko mottali dajale seen xaalis yónnee ko seen benn rakk bu ñuy wax Mamadou Kebe moo Mamadou Kébé teg ko ci loxo sëñ Mamour ñu ànd dem ci Serigne Ablaye bi ñu ko ko waxee ñu dem nañ ci imam Ngañ demee ci Baye Ngañ ànd ak moom ci chef de village ñëw ci Baye Jibi mooy paa bi dëkkoon fii bu nu eggee paa bi dafa jooy ndax daf ko préparer woon pour gas ko fi mais loo warta def rek doo ko def ñu dem ci wana bi mu wan nu béton fer ciment ni terre pour ngejj gi la woon mais mënta jog pour gas ko kon yàlla ñii la ko jagleel. bu nu am ci werante paa yi sax fële leen waxoon ci koñ bële mais bu nu amee werante delluwaat Serigne Ablaye ko mooy kilifa gi mu ni bu ngeen demee ci kanam jal bi am na garab gu nekk foofu mooy raaj gi am na ci penkoom tuuti rek bu ngeen xoolee di ngeen fa am benn xóote bu fa nekk foofu mooy place teen bi bu ñu ñëwee xool it gis ab xóoti am na tamit ay sarax yu mu génn la woon ñu génne sarax yi soo ko gas teen bi. dañ koy gasit góor gi nga xam ne moo yoroon liggéey bi ñu koy wax Baye juuf di góorug Baay Faal gu yéeme sax gu doy waar nee na teen bii la musa gas ba jot ndox ci beeñ te teen bi mabul te cimenté wu ko loolu lu yéeme la benn jour day ni gas nii ba ci àgg rek ñu dégg benn buri ñu defee ni teen bi moo daanu ci kawam léegi daw waa ji ko doon xëccal suuf si daw dugg ci filawoo bi mu toog ba ci àgg mu dégg góor gi woote mu soog a ñëwaat mu ni ko man damaa defoon teen bi daa maab mu ni ko déedéet borom teen bi moo ma fekk ci biir teen bi borom bërëb bi Seydina Limaamu nee na moo ko fekk ci biir teen bi ni ko nag teen yi ma gën a fonk bii ci la bokk teenu ngejj gi ni ko yi ma gën a fonk bii ci la bokk turu lan moo ko waral garab la goo xamante ni comme genre filao wala rek mais car yi day wàcc nii ci suuf am benn xunti fii jal bi ne fa la nekkoon garab googu moo tudd ngejj fi la Seydina Limaamu newoon ak saaba yi mu àndaloon comme la daloon yonent bi ca xaaru Hira moom moo nekkoon fii ndax ñi ko doon seet ñëw nañ fi aller retour dem dem dem dem dem gisuñu ko moo soog a jóg génn wane boppam. du waaw kuy nëbbutu du wane boppam. du wane boppam. dafa gàddaay waaw. jóge Yoof waaw. le 11 septembre 1887 la fi ñëwoon xam nga loolu yàgg na. booba filaawoo yi amu fi dara amu fi ay gargam boose fi newoon ak façon rab wu nekk ak garab gu nekk ndax filaawo bi mu 1942 lañ ko fi commencé jëmb tubaab yi ñu nga ko fi def mooy ci ndigalu Seyna Isa lu yéeme daal lu yéeme waaw lu yéeme la lu la <coughs> léegi ma bëggoon a xam euh, teen bi kañ lañ ko fi def 98 98 si ndigalu kan ci ndigalu Bayraan boobu Bayraan mooy xalifa bi mais moom moo nekkoon par porte parole bi. a ah, loolu moom mbiru suñu borom la ak borom bërëb bi nit mosu koo mën a naan xorom kese la woon xorom ñun sax gisoo nii ci dañoo xëccoon robinet fee sax di fa root mais ba mu neexee ba léegi rootatuñ ci robinet bi teen ndoxu teen bi rek ci la ñuy attaay ci la ñuy def lépp léegi ñun robinet bi presque ci ngéej gi ba ngéej gi lañ koy ubbi waaw te ñun ci lañ daan naan ci lañ daan def lépp ndax booba ndox mi kenn mënu koo naan ndax xorom mais nag ak ñaari at yëpp. gisoo fi kii bi fa jëm fa fa ñuy toog fa la jëm bi teen bi la déparé ba foofu waaw. ngeen jiga di lieu ba nga xamante ne nii euh, taalibe yi dañ fiy ñëw. léegi ñoom bu ñu ñëwee pèlerinage bi naka lay demee. waaw dañuy ñëw wàcce kaamil sikar premier jour bi dañuy ci sikar ñu def ay ñaan jour bi nga xam ni mooy jour tamxarit bi la laan demee tamxarit dañuy wàcce kaamil fii ci suba gi waaw def fi waxtaan bu ngoonee nag ñu sikar. cérémonie bi sëriñ bi ñëw waxtaan ñaanal nit ñi fi teew ñëpp ñit ñëw siyaar ñaan si seen aajo ñaan seen soxla ku ci feebarit nga ñëw sangu ci teen bi yàlla saafaral la sa jàngoor dinañ reprendre at sa émission bi ba pare studio sanga mom lañ la jox fa ngay féete fu ne la ji nit di jóge ni dañ ko fe yabal wala dama koo gis ci gént mm-hmm. bërëb bi laa gis ci gént fu ne nag fu ne la nit di jóge di ñëw fii di ñaan seen aajo sunu génn góor mi ngi dëkk fi ñu koy wax Baye Cheikh Seck nee na ma euh, Assane Salam nee na ko Cheikh Ibra Fall ko fi jëkk indi te Cheikh Ibra Fall bi mu koy indi fii 1952 52 la fi ñëw ak Baye Cheikh Seck Baye Cheikh Seck ni ko yow da ngaa xam fii mu ne ko xam naa kon Ibra Fall mos na ma fee indi. ni nag def naa fi junniy at géej gi Cheikh Ibra Fall ni ko def naa fi junniy at. li ci des mooy sama comme ci wàllu teen bi rek man dama tëdd bu guddi sama doom feebar. biir bi di métti muy wiñaaru sama jabar ne ma nañ ko yóbbu hôpital ma ne ko dee taxawal fekk yoroon naa ci ndox mi ak suuf si moom am na secret yoo xamante ni kenn du ko wax ci waaw moom laa def rek jox ko dama koo jox mu naan ko rek wallaahi azim ni këpp ci lal di nelaw ba ñoo ko yee ci fayal ni ko jógal ndékki def lépp lu yàgg loo xamante ne ni daana am te mu commencé daal moo taxoon ñu dem seeti ji teen bi teen di loo xamante ne nag lu yàgg la nekk loo xam ne dañ ko daan jëfandikoo pour lépp lu soxla ci ndox naan fóot sangu togg yooyu noonu mais moom dégg ngeen ni mu ko expliqué ci reportage bi nee na dafa amoon ku mbébatoon def teen bi foofu noonu yàlla def ndeysaan mu génn àdduna ñoom ñu ne nañu eggale yéene bi léegi nag euh, après si la leen sëriñ bi joxe ndigal ne mën ngeen a gas foofu ba mu amee ay werante nag ci fiñ ko war a def sëñ bi daf leen a jox ay tegtal ne leen am na benn partie boo xam ne boo leen fa demee xam xaw na xóot foofu boo leen ko kiiwee rek di ngeen gis kii bi paa bi ko doon euh, gas dégg nga ko nee na Baay Faal la te mu nekk ñoom euh, lieu bi dafa mel ni Baay Faal la mhm. Baay Faal la ba pare lieu bi dafa dafa kii dafa am link ak bayfalisme dafa am link ak bayfalisme parce que nee na maam Cheikh Ibrahima Fall dox na ba ànd fekk na ba ñëw ci lieu boobu noonu. waa nee na bi mu fi ñëwee mu ne ko ah Ibra ndax dangaa xam fii mu ne ko fii def naa fi junni at. Mhm. kon lieu bi kon mën nañ ni bu sacré la. Mhm. bu macha allah. Moussa si diin tamit am nañ fa seen wàll ndax ñoom tabax nañ fa ay euh, kii def nañ fi dégg naa semaine. Mhm. ne sëñ Moustapha ne leen nag fii na ngeen xam looleen leen fi ñaan ndax lépp loo fi ñaan rek yàlla dina ko nangu incha allah rabbi mu ngi noonu mu ngi noonu moo tax ñoom chaque année dañ fay def pèlerinage mm-hmm. chaque année chaque année lendemain tam xarit mm. laa yéene dañ koy def comme genre appel la day fees dell macha allah dañuy ñëw xam nga yéen nekkul yoof kese la ñuy amal non non nekkul yoof kese parce que déggoo li sunu papa bi ma kumba wax dafa ne mm-hmm. paaw baay faable bi muy gas nee na dafa jékki-jékki rek am lu mel ni comme genre bruit. que mu àndaloon dafa daw parce que dafa yaakaaroon ne teen bi moo màbb ci kawam. fekk na du loolu borom teen ba moo ko fa fekk mm-hmm. ne ko nag teen bi bokk na si teen yi ma gën a fonk mm-hmm. Mm-hmm. te teen bi buñ koy door a gas nee na dafa wexoon xatt ak xorom mais dañu jékki-jékki rek mu changé man dem naa fa ñam naa ko ndox mu neex la macha allah macha allah man li may wax foofu mooy que ni euh, comme ni mbay Babacar li ñu daan wax naan ne mag ñi dañ daan am connexion seen biir. Mhm. Euh, parfois parce que euh, lim nga si sëñ Moustapha lim nga lim nga si Ajibo Daay Laay mhm. lim nga si tamit. maam Cheikh Ibrahima Fall mu ne mhm. la fii xam naa fi junni at avant avant que moom kooku noonu di fi commencé voilà doon fa dem. et mu doon lieu boo xamante ne lieu lieu lieu bu sacré la man damay damay wax rek que ni mbiru Ajibo Daay lay mënul ndaw parce boo boo taxawee ne géej randul géej randu nga ñëw taxaw nga dëkk donc munu munu munu kon mën naa ne lii lu gën a ndaw la si kéemtaanu aji boo daay laay maam li maamu dafa am connexion ak ndox mhm. c'est que paa sax wax na ko nee na moom dafa am connexion ak mhm. ndox mhm. dafa jubóog ndox macha allah parce que fépp fu mu dem rek même euh, waaw lieu bu mu nekk ndox dafay dafay daal di nekk waaw dafay daal di ne ndox dafay daal di kii wuy si mel ni ndox bi da koy topp xoolal ngor yoof wakaam ngor yoof wakaam malika gi malika gis nga fépp fu mu mës nekk rek mhm. ndox fekk na ko fa te macha allah ku fa dem daal bi nga gis ay ngëneen mhm. te nee na nit ñi dañ fay ñëw même bu fekkul sax pèlerinage boobu ñuy amal chaque année mhm. nit ñi dañ fay ñëw ñëw ci teen bi di fa waaw ñaan seen soxla tawat boo am yëg ko sa yaram sa yaram diis boo ñëwee ñaan yàlla yàlla defal la tawféex donc teen bu jara dem seeti la. ak ak jal macha allah ak jal bi nga xam ne du raaf jamais. jal bi ñuy wër des années et des années. Mhm. jal bi noonu la mel. Mhm. def dara. te ñi dañ siy ñëw di tibb. da ngay jal benn mhm. jal ñëw fekk mu wàccaat. mu wàccaat mais imaginez ay des années et des gis jal boobu jalu jalu la ne jalu suuf. jalu suuf la boo boo ko gisee si image yi noonu jalu suuf la. moom léegi ñoom bu ñuy ñëw dañ koy tawaaf comme Makka. bu ñuy wër Kaaba ga Euh, bu leen neexee nee na ñu def trois fois mais bu leen neexee ñu def sept fois nee nañ nag set fois bi moo gën mhm. mais dañ koy tawaaf te nee na li ci gën a kéemtaane si suuf boobu mooy que ne ku ko cëb takk ko foo tukki foo mën a dem da ngay dellu si waat <laughs> doo tukki ba lang fa ma ne kon suuf soosu jar na kon di téye mhm. parce que am na ñoo xam ne dañuy tukki mhm. dootu ñu ñëwaat waaw macha allah jàll yoo euh, xam nga xam nga wolof dafay day léem ne ku aj day bañ ku teen ku aj day bañ ku teen lan nga si dégg mooy senegal dafa benn particularité boo ko am ci àdduna bi ci wàllu mbaax ak ay ngëneel léegi nag ñu bari ci àddina bi am na ci ñoo xamante ni bu nu sañoon loolu du wéy walla du fés wala du walla wala du du du du du làndi ba tax na ci jamono bu ñu nekk jamono bu nekk euh, programme lay doon ci ñenn ñoo xam ne dañuy bëgg loolu saay léegi nag loolu ngir mu saay dañ koy tàmbalee ci mbànjaxaan gi mooy génération bu ñëw dañuy fexe ci wàllu yar ci wàllu jikko ci wàllu nekk ay nit ñu nite ci wàllu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy am repère wala dañuy xam seeni royuwaay dañuy fexe ba loolu ñu gaar ko waaye nag réew la moo xamante nii mu am ay repère lañ mu am ay royuwaay lañ te loolu euh, ñi nga xamante ni ñi ngi fexe gàllankoor loolu euh, suñu fexe woon ñu nit ba contre contrecarrer loolu indiwaat suñu mbaax gi fi nekkoon ba ba ndaw ñi xam ko ah dinañ nekk réew moo xam ne macha allah. ci bépp fànn te te te Mbaye li ma gën a marqué nag wax dëgg yàlla ci ci ci laayeen yi man li ma gën a marqué si ñoom. mooy mhm. set gi ñu set. set nga wallaay wallaay. c'est que ñoom seen lieu boo dem rek. da ngay gis environnement bi macha allah. tout blanc bi rek déjà. tout blanc bi rek dafa fësal lépp mais seeni ay suuf. Mhm. macha allah dañuy lay ba mu sax mu rafet. waaw dañuy def euh, général. da ngay indi oto pompier lépp ba pare suuf si dañ koy def de telle sorte que yow mooy dox poussière bi du parce que foofu c'est goudronné. Mhm. tali bi ngay jaar noonu pour bi ngay jaar pour dem c'est goudronné léegi ñoom ñu wut beneen suuf sotti ci ba yow bu weex li noonu a ah, dañ leen a yar macha allah yar nañ leen. Ah, laa yéen yi dañ leen a yar. foofu yëpp mu ngi noonu leen neexoon ñu dëkku dëkkuñu fa parce que suñu kenn dëkku foofu. di nuyuwaale ay oto. ñu di nuyuwaale Serigne Serigne Mamour maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar demoon nañu këram wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu dalal ñu macha allah expliquer ñu teg ñu si yoon donc ñu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu tamit euh, maam Fan Ndiaye mi nga xam ne nii moom ma fay yóbbu woon ak sama taan maram an dëgg yàlla rëccu ma wut lu ma fa demee macha allah. am waay dinañ fa dem moom mu soobee yàlla danaa fa dem ah jar na ko <laughs> waaw soxna wa maa leen di gën a kii nuñ koy waxatee